وكان الشيطان للإنسان خذولا waaw kay macha allah maa ngi nuyu ñépp di sant ñëpp di baalu ñëpp sa di leen baal aax tey ñaan yàlla mu boole ñu jéggal waaw kay dama amoon euh, ay laaj yoo xam ne maa ngi ko buggoon a laaj di sàkku ma ci mën a tontu euh, laaj yi nag mooy ndax yàlla dafa digal ñi gëm ñuy tagg yonent bi ndax yàlla dafa digal ñu gëm ñuy tagg yeneentu bi xam nga su ngeen ñëwee fii sax ci réew mi am na nit ñoo xam ne dañ wax ne sax ñoom ay taggkatu yeneentu bi lañ waaye sama laaj rek mooy ndax yàlla daf ñoo digal ñu tagg yonent bi su ma waxee tagg yonent bi nag mooy ñoo xam ne ci ci wax rek ci lañ yem walla ñoo xam ne dañuy bind su ma waxee it bu kenn wut a détourné samay wax naan waaw kii dafa mel ni suñ mag ñee tax ñuy wax man waxuma pour suñ mag ñi damay wax pour ñëpp <laughs> wax damay wax pour ñëpp ñëpp tax may wax ndax yàlla dafa digle ñu tagg yonent bi moo xam ci la jiitu moo xam ci la mujj lu mën a doon ndax yàlla dafa digle ñuy tagg yonent bi beneen bi ci topp mooy ndax tagg yonent bi ci boppam ku koy def ndax yàlla dala ciy fay ndax kii tagg yonent bi ndax loolu yàlla dala ciy fay beneen ba ca topp mooy ndax tagg goo xam ne nit da koo tagg yonent bi ndax nit su ko dee jàng yàlla dafa am lu mu ko cay fay waaw ndax tagg goo xam ne nit da koo tagg yenentu bi ndax nit su ko dee jàng dafa am lu ko ci yàlla di fay laaj yi laa amoon tey doon sàkk koo xam ne dina ma ci mën a tontu macha allah sant yàlla jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum. ñu ngi sant borom bi tabaraka wa di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di mucc ak nekk ci yonent ak i saxaabaam ak mboolem ko aw seenu yoon ilaa yawmi diin Cheikh Mbacke Sakho waaw yàlla de mu santaane ne wa qulu nasi husnan te len wax wax ju rafet rafet rafet ci nit ñi te eh, wax ta rafet wax jikko yu rafet ci ki gën rafet ci nit ñi mu bi sallallahu alayhi wasallam nga waxal ko lu rafet loola wax gën ko rafet te loolu yàlla digle kon loolu mën nañ ko dugal ci tagg yonent bi rek ci wax ko lu rafet kon loolu yàlla ko digle te lu yàlla digle nag képp ku ko def yàlla dana la fay kon képp ku tag tagg yonent bi def nga ndigalal yàlla te yàlla dana la ci fay benn képp koo xam ne it jël nga ay xasida yuñ tagg yonent bi yaa ngi wax lu rafet ci yonent bi ndax xasida wala way yonent bi du dara lu wax ko lu rafet képp koo xam ne yaa ngi jël ay way yu ñu way yonent bi di ko répété yaa ngi jëfee ndigalal suñu borom te ku def lu la yàlla digal yàlla dana la fay kon ba tey ñooñu dañuy dugg ci ñi def ndigalal yàlla li suñ borom ne wax xooloo lil naasi husnan na ngeen wax lu rafet ci nit ñi kon nag ñi nga xam ne ñu ngi wax lu rafet ci yonent bi sallallahu alayhi wa di ko bàkk ak di ko kañ di ko màggal ñu ngi jëfee ndigalal suñ borom benn bi ci topp suñ borom dafa wax ci alquran ne fallazina amanu bihi ñi nga xam ne gëm nañ yonentu bi wa asaruhu te ñu màggal ko wa nasaruhu te ñu dimbale ko wat tabaxu annuur allazi unsila maahu ulaayka humul muflihun suñ borom daf ne ñi nga xam ne dañoo màggal yonent bi dimbale ko topp leer gi nga xam ne wàccee nañ ko mu ànd ak moom ñooñu ñooñu texe te màggal yonent bi gëm ko weesuwul di ko tagg ak di ko màggal yàlla nag nee na ñooñu ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoo texe kon nag képp ku mën a tagg yonent bi taggal ku mën a wax lu baax ci yonent bi waxal boo ko defee yaa ngi def ndigalal suñu borom wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw kay asalaamaaleykum macha allah maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di baalu ñëpp aax te di leen baal aax tey ñaan yàlla mu boole ñu jéggal macha allah sant yàlla. maa ngi déglu ki nga xam ne moom lañ ma transféré message am bi mu mel ni day indi ab tontu ci laaj yooyu ma laaj nee na yàlla moo ñu diglee yàlla moo ñu digal ñuy wax ci nit ñuy wax ci nit lu rafet kon loolu nit ki su koy def ndigalul yàlla lay jëfe comme lu ñuy wax tagg te moom sax li mu wax dane kon loolu mën na ko dugal ci tagg gi xam nga tagg moom tagg la wax wax la ndax mën naa wax ci nit lu rafet te it ma ko tàgg mën naa wax ci nit lu rafet ma am te ma ko tàgg ñaar yooyu dara wu leen yàlla wax na ci alquran wa xuulu linnaasi xusnan waaw nit mën na wax ci nit lu rafet te tekkiwul na da koy tàgg léegi nag man fi sama sama laaj foofu la jëm mu ngi jëm ci tagg ndax xam naa ne yonent bi li nga xam ne suñ borom moom la wax ci moom cib téeréem loolu yàlla dogal na moom lu ñu xam la suñu demee ba di ci wax it li yonent bi wax ca maanaam li yàlla suñu boroom wax ca moom suñ bëggee la ca wér la ca wóor dañuy wax la ca yàlla wax rek te yem ca ñun moom yàlla dogal na foofu lañ teg suñu tànk ñun wax la ca yàlla wax te yem ca ndax lu mu ci mën a doon lu ne la ca gën a wér loolu moom yàlla dogal na amul léegi nag li may laaj mooy man tagg laay laaj tagg mooy wax yi nga xam ne moom la nit ñi moom yi nga xam ne dañ koy bind wala ñii ñi di ko wax mel ni dañ koy bàkk dañ koy tagg ndax sama laaj yi sax loolu maanaam benn manqué na benn laaj laaj bi bokkoon na ca loolu dëgg-dëgg sax lan mooy njëriñ li maanaam tagg googa lan mooy njëriñ li loolu bokkoon na ci loolu bokkoon na ci laaj yi nga xam ne moom moom laa waxoon ne danaa ko ci laajaale xam naa sama xel moo fattu woon mooy ci misaal ndax yàlla daf ñoo diggal ndax man sama laaj foofu la jëm ndax yàlla daf ñoo diggal ñu tagg yonent bi ndax ñi nga xam ne dañ koy tagg tagg googu ñu koy tagg moo xam lu ñuy wax la wala moo xam lu ñuy bind la ndax yàlla da leen ciy fay ñi nga xam ne dañoo dañuy dañuy jàng ay tagg yu ñu taggoon yonent bi ndax ñoom it dañ leen cee fay ñeenteelu laaj ba nga xam ne nag moo génnoon sama xel mi mooy tagg googu ban njëriñ la am ban njëriñ la am ban njëriñ la am waaw loolu moo doon sama laaj ñeenti laaj yooyu kon kii moom wax dëgg yàlla moom mbiru wax la indi mais man nag tagg laay wax ndax soo demee ci al soo demee sax ci arab ñaari baat yi bokkuñ niñ koy waxee ñaari baat yi bokkuñ niñ koy waxee waaw ni ñuy wax ak ni ñuy waxee tagg ñaari baat yooyu bokkuñ niñ koy waxee ci arab soo ñëwee ci olofit bokkuñ niñ koy waxee soo demee ci yeneen langue yi it da ngay fekk ne bokkuñ niñ koy waxee waaw kon nag man li may laaj ak loolu gis naa ne wuute na man waxuma ay wax ci nit ñi lu rafet comme lu yàlla di jàngale ci misaal lu mel ni waxulu linnaasi xusnan loolu loolu man taxul may wax waxuma ay wax maam tagg laa wax parce que ñaar wuute la macha allah sant yàlla jërë ngeen jëf asalaamaaleykum auzu wax min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim la hawla wala quwata illa billahi al aliyyil azim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëñ Abdou ñu ngi la nuyu waa mbokk mi dafa mel ni mm, laajam bi terre à na waaye kee bu tontu ko dafa laaj ngir eh, diingat dafa laaj ngir bugg xam dafa laaj ngir jooy réer ak ñi eh, tagg yonent bi yàlla xam waaye eh, kee bu rek. defal ko ci tontu ndax dana tax mu dégg wala du dégg yàlla xam wante yàlla moo njëkk tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquranul karim wa innaka la ala xuluqin azim waaw sa kawe moom aw tagg la yàlla wax ci alquran ñu war a jàng alquran yàlla sant ñu ko ndax ku jàng alquran da nga ci am tuyaaba yaakaar naa ne tontu li mooy waaw bu ñaari laaj yépp wax ji lu mu gàtt gàtt mën nañ ne tontu nañ ko mën ne yàlla ko tagg wax na nañu jàng tagg wi ku jàng alquran yàlla fay la bon mu ngi noonu léegi mu des nag ñay tàggaate ñay tàggaate ñoom lañuy tàggaate ndax ko jàng da nga am da nga am yool ñay tàggaate lañ lu ñuy wax mooy lay ayal quran di wax la ñuy jël di ko di ko di ko waxaat mooy ne yàlla mooy ne yonent bi yaa ayyuhan nabiyu inna arsalnaaka shaahidaw wa mubasiraw wa nathiraw wa daaciyan ila allahi bi idnihi wa siraajan niira ci suuratu tawba yow yàlla ma yow yonent bi man yàlla maa la yónni nga nekk di ki nga xam ne yaay nekk shaahid ci sa umma di mu bas mu basir di bëggal nit ñi ci aljanna wa nathir di xupp nit ñi di leen waar ci safara ngay xoote jëmee ci yàlla ci sama ndigal nga nekk di làmp bu leer mu dekk di bashir di Nasir ñu buñ koy tàgg dañuy wax naan yow yow yaay Bachir yaay Nasir yaay Siraaju Munir lu tagg yi day du paasewut loolu ak lan yàlla ne xad jaakum min allahi nuurun wa kitaabun mubiinun ñu ne ko yaa yaay borom risaale bi yow la yàlla tànn yaay nuuru mu waxaat فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل إليه أولئك هم المفلحون ñi xamne gëm nañ ko ta wek ko te di ko dimbale te topp ko ñoo ñooy nga xam ne ñooy ñooy di gëmaat leer gi nga xam ne wàcce nañ ko ci moom moom leer la yàlla dina koy tuddee leer dinay tuddee alquran leer ñooñu de ñoo ñi nga xam ne ñu ñu kii lañ ñu texe lañ bon lu ñuy wax yaay ki jëm rek dimbale yaay ki nga xam ne ku la dimbale <laughs> yàlla yàlla dimbale ko yaay ki nga xam ne ku topp topp na yàlla li yàlla wax lool tagg bi rek tagg bi yépp loolu la lañuy wax mooy la yàlla wax rek yàlla tagg na sax ku yónnante bi ci alxuraan boo demee yónnante yàlla suleymaan wa wahab na wa wahab naa li daawuda suleymaana niamal abdu innahu awab niamal abdu innahu awab yónnante yàlla ayobo نعم العبد إنه كان صبورا لولو نيكا جانغ تي القران كوكو جانغ يالا يالا يولا سفان به نون كو ديف سفان يونتي بي كيب كوكاي لور بو ديمي تي سوره التوبه با ومن ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للذين للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا من منكم والذين يؤسون رسول الله رسول الله لهم عذاب أليم من ميغا خامن داني لور يونتبي دي اي واخ يتيغي هون تي موم مو هوتك نيكاي نان بوروم بن نوبلا ديكو سبات نان بن مبو لو خو واخ قل هو قل اسن خير لكم ньоñu sen pay elek moy mbugal mu tar kon bok ku taglu yonent bi ndax diko ko alquran neena na mbugal ñeexal la la yàlla mi tag yonent bi bo jange am tagam nga num tudit nga nga nga am ci yoll ñi koy def dissertation gën ko sara gën ko yaatal diko bindu wi sar wala diko way ku ko jangit am njàngale la istinbat la ci li yalla santane ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam yal nañu yàlla defal dégg ak coob waaw kay asalaamaaleykum waaw kay maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di baalu ñu paax te balaax tey ñaan yàlla mu boole ñu jéggal maa ngi déglu message yu ki nga xam ne moom moom lañ ma jottali jottali nañ ma ko rek wax dëgg yàlla bu xaw a yàgg yàlla dogal ma xawoon a jàpp looloo tax ba mu ma ko woon a déglu waaye déglu naa ko léegi nii ki ci waxit dégg naa li nga xam ne moom la wax euh, waaye yaakaar naa li may laaj man yaakaar naa laaj bu précis la laaj bu leer la daal mooy ndax yàlla dafa digal ñi gëm ñuy tagg yonent bi loolu mooy laaj bu njëkk bi te yaakaar naa ki njëkk a tontu wax dëgg yàlla ba tey tontuwul ca la ma laaj ndax yàlla dafa digle dafa digal ñi gëm ñu tagg yonent bi ndax yàlla dafa digal ñi gëm xam nit su waxee ne ndax yàlla dafa digal ñi gëm ñu tagg yonent bi nit su bëggee saxal ne waaw day war mu wane fan la yàlla diglee lu mel noona waaye su fekkee ne nit dafa laaj laaj yu mel noonu nit ñëw ne yàlla moo njëkk tagg yonent bi ci wa innaka la ala xuluqin azim te yàlla dafa digle ñuy jàng alxuraan te kuy jàng alxuraan di nga jàngale tagg bi kon loolu su boobaa maanaam kon loolu su boobaa maanaam moom lu mu wax noonu day tontu man sama laaj yi te wax dëgg yàlla yàlla tagg yonent bi ci biir alxuraan ci wax ne diwkat nii la meloon nii la meloon nii la meloon te yow moom nii nga mel yàlla dafa wane jikkooy keneen wane ay jikkoom moom loolu nag waxu yàlla la yàlla moo ko wax ci wax joo xam ne tëbul rek ne ko yow kat nii nga mel daa wax ne diw mii diw mii diw nii la mel yow nag nii nga mel wax ji dëgg-dëgg ku dem ci saar boobu du sootu xalam noonu nga fay fekkee wax ji tëddee fa loolu yàlla wax foofu yonent bi du ndigal loo xam ne yàlla dafa wax ne yéen ñi gëm dee leen tagg yonent bi loolu du ndigal tey it la mu wax ci yaa ayuha nabiu inna arsalnaaka shaahidan wa mubashiran wa nadiran wa daahiyan ila llahi bi iznihi wa siraajan muniran boobu nekk ci sootu ahzab loolu tamit ba tey yàlla nekkul la da koy tagg yàlla taggul yonent bi yàlla taggul yonent bi yàlla dafa wax rek yonent bi li nga xam ne moom la doon li nga xam ne moom la dogal ci moom mu doon ko dégg naa nag waa ji wax benn wax indi benn aaya di xadd jaakum min allahi nuurun wa kitaabun mubiin mu ne yonent bi yàlla da ko tuddee nuur yonent bi amul fenn fu ko yàlla tuddee nuur ci alquran amul fenn fu ko yàlla tuddee nuur ci alquran xad jaakum min allahi nuurun wa kitaabun mubiin nuur boobu mooy kitaabun mubiin loolu yaakaar naa jamono bee ci ginnaaw am na ci kenn ku bokk ci seen groupe bi ñu ngi ci doon wax nga xam ne alquran maa ngi ko doon wax lu mel noona yàlla day indi benn baat indi beneen baat ci kanamam te baat bu njëkk bi mooy baat bu mujj bi waaye dalay indil ab melo ci baat booba ndax yàlla waxoon na ko fële walakin jaalnaahu nuuran nahdi bihi man nashaau min ibadina fii na yàlla waxoon na ko xadd jaakum min allahi nuurun nuur googu lan la mu ne kitaabun mubin waaw maanaam dikkee na leen bàyyikoo ci yàlla ak leer di téere bu leer dëgg-dëgg wax ji moom foofu noonu la demee kon ba tey tamit loolu loolu ba tey du ab tagg man li may laaj rek mooy ndax yàlla dafa digal ñi gëm ñu tagg yonent bi loolu nag nit su ma bëggee wax ne ma waaw yàlla da koo digle day war mu wan ma fan la yàlla diglee loolu waaye su fekkee day indi ni'mal abdu innahu awwaab tagg boo xam ne yàlla moo ko taggoon ab nit loolu yàlla moo ko taggee ab nit ñun suñuy jàng alxuraan dañuy jàng alxuraan ci biir alxuraan tagg googa mu ngi fa leneen ak leneen ak leneen mu ngi fa te ñun yàlla waxuñu ne tagg leen yonent bi waxu ne waxuñu ne tagg leen yonent yi yàlla waxuñu moom ci boppam sax nañu tagg leen ma man yàlla waxuñu loolu man li may laaj rek mooy nekkul ne nit ki day ñëw rek ne ah xaw ma ndax suñ ko tontoo nangam déedéet man li ma bëgg rek mooy ku ma tontu te ku ma tontu ki may tontu ndax laaj bi mooy ndax yàlla dafa digal ñi gëm ñu tagg yonent bi kon ku may tontu da ma war a indil fan la yàlla diglee loolu su fekkee ne da ngay wax ne yàlla diglewu ko fekkee ne dangay wax ne ah lii kat gisuma fenn fu ko yàlla digle nga ne ma ah wax dëgg yàlla man de gisuma fenn fu yàlla digle ndax wax ji du diingat wala nàngam wax ji lu mu doon mooy ndax nit ki ki nga xam ne dafa gëm war na ci moom mii dox ci lu ko boromam digalut maanaam wax ji dëgg-dëgg foofu la nekk man sama laaj foofu la jëm ndax nit ki gëm war na muy dox ci loo xam ne suñ borom digalu ko ko moo tax may laaj ndax yàlla dafa am fenn fu mu wax ne ñi gëm dafa war ci ñoom maa wax ba yàlla dafa am fu mu digalee ñi gëm ñuy tagg yonent yàlla waxul ne moom ci boppam ñuy tagg moom ñu koy tagg moom ci boppam digaluñu ko léegi moo tax may laaj ndax yàlla dañoo digal ñuy tagg yonent bi moom ci boppam loolu mooy li nga xam ne man loolu laay laaj léegi nag képp koo xam ne mën nga maa indil foo xam ne suñu borom foofu la diglee ñu tagg yonent bi wala foofu la diglee maanaam comme li ma wax foofu la diglee ñu tagg yonent bi koo xam ne mën nga ma ko jox nga jox ma ko man sama laaj dëgg-dëgg foofu rek la jëm waaye gis naa ne ñi nga xam ne ñooy tontu ay fa alladina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattabahu nuur allazi unzila mahahu ulaika humul muflihun ku njëkk ka wax na ko ku mu gi wax na ko waaye wax dëgg yàlla ba tey it foofu yàlla waxul ne nañ ko tagg waaw man daal li may laaj mooy ndax yàlla dafa digal ñi gëm ñi tagg yonent bi loolu rek la loolu laay laaj macha allah koo xam ne yàlla dogal na mu amul tontu wax dëgg yàlla parce que ñaar rek moo mën a nekk benn yàlla digle na ko fii la ko digle benn yàlla diglewu ko ñaar yooyu rek moo mën a nekk. waaye nag wax dëgg yàlla ñëw nii euh, comme ni ñuy tontoo noonu lool moom wax dëgg yàlla xëy na soo ko doon wax ak koo xam ne li ngay wax moom xamu ko. xëy na su boobaa kooku li ngay wax dana ko mën a doy waaye man nag man mii laaj li may man man yéen baat yi ngeen di wax ak aay ya ngeen di wax loolu moom lu ma xam la kon nag man li may laaj du loolu dama ne fan la yàlla digal ñi gëm ñuy tagg yonent bi loolu rek laa laaj macha allah sant yàlla jërë ngeen jëf asalaamaaleykum. waaw kay asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di baalu ñëpp te di leen baalaax tey ñaan yàlla mu boole ñu jéggal. fan yii dafa am ay laaj yu ma fi laajoon laaj yi jëmoon ci lu ñuy wax tagg yonent bi laaj yi doonoon ndax yàlla dafa digal ñi gëm ñu tagg yonent bi ndax yàlla dafa digal ñu gëm ñu tagg yonent bi laaj ba ca topp nekkoon ndax kuy tagg yonent bi moo xam ci ay wax la yam wala moo xam lu ñuy bind la ndax yàlla dafa am lum la ciy fay ndax kuy tagg yonent moo xam ci ay wax la yem moo xam ay bind la ndax yàlla dafa am lum la ciy fay beneen ba ca toppoon nekk ñi nga xam ne ci misaal dañuy tagg maanaam dañuy jàng ay tagg yoo xam ne dañ koo taggoon yonent bi moo xam dañuy yor ab téere di ko jàng wala ñu taxaw nii rek di ko wax mu nekk ay tagg yoo xam ne dañ koo taggoon yonent bi ndax ñoom loolu yàlla da leen ciy fay laaj mu mujj bi doonoon tagg googu sax nga xam ne moom la ñuy tagg yonent bi te nit ñi di ko def ana lan mooy njëriñ li euh, laaj boobu nag biñ ko defee am na ñaar ñoo xam ne jotoon nañ cee wuta tontu kenn ki ñëw na ne yàlla nee na comme nit kii nañuy wax ci moom lu rafet comme te suñuy tagg lu rafet la ñuy wax nangam comme wax yooyu daal ma ne nit mën ngaa wax ci moom lu rafet te doo ko tagg ndax wax ci moom lu rafet mën na nekk wax dëgg gi rek li nga xam ci moom ndax su fekkee ne ay seede la yàlla lu wax fee ci alquran am na lu wax ne wa ma shahidna illa bima alimna maanaam nit ki su fekkee da ngay wax ci nit maam dangay ngay seede ca moom da ngay wax ca moom la nga xam rek ndax loolu lu tax ngay créer ay wax di wax ay wax yoo xam ne amul fenn fum sukkandiku am na keneen ku ñëw tamit moom it def sax lu tubaab di wax gymnastique intellectuelle naan waaw comme yàlla moo mu njëkk a tagg yonent bi wa innaka la ala xuluqin te loolu tagg googu ci alxuraan la nekk te yàlla moo digle ñu maa ñu jàng alxuraan te kon kuy jàng alxuraan maanaam di nga jàng tagg boobu te ku jàng alxuraan di nga ci am ay tuyaaba kon nangam loolu moom ji a sekk intellectuel la te man sama laaj jëmul foofu man sama laaj mooy ndax yàlla moo digal ñi gëm ñuy tagg yonent bi kooku sax booy na ca maam tudd na fa baatu di nga tudd na fa ay waxtaan indi fa ay aaya euh, ba pare maam comme ni wax moom ak ku njëkk ki yëpp indi benn aaya yoo xam ne mu ngi nekk fële ci sootul Araaf بق فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون تلول دا راه بولي وكوك نيوم لي ني واخ تاغ لا ني واخ واه ناخ كو نديك كسا ما نكاي واخ لول واخ اك تاغ دو بن تاغ لا ني واخ ناخ نياري ناخ ناخ نياري مبير يوي سو ديمي تي عرب بادي كوي واخ دو بن سو نيوي تي اولف بادي كوي واخ دو بن سو ديمي تي يينن لاكيت نون لا ديمي léegi man li may laaj mooy ndax yàlla dafa digal ñi gëm ñu tagg yonent bi ndax ci misaal weer wii ñu nekk ñu koy wax weeru gàmmu soo demee ci yenn kuréel yi am na ay wëy yoo xam ne dañ koy jàng ñu wax naan wëy yooyu yonent bi lañ ci taggoon mooy boog moom lañ ciy tagg soo demee ci yenn kuréel yi it am nañ bëri nañ ay téere yoo xam ne loolu sax yaatu na du du nekkul Sénégal rek yaatu na ay barab yoo xam ne dañuy yor ay téere yoo xam ne ay tagg yuñ taggoon yonent bi la nit ñi jël ko fonk ko lool di ko jël di wëlbati di jang di dem sama maam fonk ko loolu amna ci ño xam sax da naka niñ fonké tag yooyu sax fonké wuñ ko alquran ca boppam ah, tag yooyu tamit wax deug yalla man mi di wax man eh, ci li nga xam ne la juddu manam yooyu dañu ko daan jàngal mën naa naa wax na biñu nek xalé lañ tambali won di ko bari na lo xam mokal nañ ko ci ba léegi ni sax wuñ ko bëri na ci lo xam ne na ci lo xam mokalon nañ ko ca bañu nek ndaw te ba ñong ko mokal yoo xam ne xeet googu la woon moo tax ñuy ñëw di laaj ndax yàlla dafa diggal ñi gëm ñu tagg yonent bi ndax maa ngi koy wax sax kenn ci ñoom bi ñëwee tontu dama ne ko maanaam man li ma laaj ñaar rek moo mën a nekk nga ne ma yàlla moo ko digle léegi nga ne ma fii la ko digle aaye sàngam saar sàngam wala nga ne ma yàlla diglewu ko su ko defee nit ñi mën a xam ne kon lii yàlla diglewu ko mu nekk lu leer te su ko yàlla diglewul kon du ca faye du fay ko koy def du fay ko koy jàng léegi nag su fekkee ne yàlla du fay ko koy def su ko yàlla diglewul du fay ko koy def du fay ko koy jàng kon kay mooy amul njariñ léegi ñun suñ question foofu la jëmoon kon nit ki li waroon mooy mu ñëw mu ñëw nañu yàlla kat moo ko digle fii la ko digle wala mu ñëw nañu lii yàlla diglewu ko fenn te su ko yàlla diglewul fenn mooy kon amul njëriñ su ko yàlla diglee mooy kon am na njëriñ waaye laaj nañ ko yàlla dogal na ñaari nit ñooñu ñoo ci jéemoon a wut tontu boobaag léegi déggaatuñ ci benn tontu ndax ñaareelu nit bi sax ñëwee wax na ba wax baatu diingat te damay wax ne diingat diine diingat amu ci diine diingat amu ci li tax ma ne diine diingat amu ci. ak domaine bu mu mën a doon sax nag maanaam baatu diingat damay wax ne sax dañ si waroon yokk ab a comme su fekkee ci français bi diñ koy bindee wax dañ sa waroon yokk ab aa di ko def jàngat maanaam su nit ñoom la tuddee diingat ay jàngat la waroon di jur ay jàngat waaye waruñ ñëw ne ah kii day diingat waaw day diingat nangam nangam maanaam mbiru gëm-gëm wala mbiru xam-xam. diingat amu ci mbiru gëm-gëm wala mbiru xam-xam diingat amu ci xam ngeen dëgg-dëgg li ci am ay laaj wala ab laaj mooy li ñuy wax question walla questionnement question wala questionnement moo ci am su fekkee ne man dama gëm benn mbir te loolu sax yàlla dogal na jamono bu ne ñoo ngi koy gis muslim yi ñu ngi fii di wax di wax li yàlla wax di ko wax nit ñi am na ci nit ñoo xam ne dañuy ñëw di wut a wax ca la ñuy wax naan waaw ñii li ñuy wax nii nàngam nàngam xeet boobu est-ce que mës ngeen a dégg ab muslim di wax ne yéen da ngeen di diingat ndax man personnellement man loolu mosuma koo wax nit mais est-ce que da ngeen a mës a dégg benn muslim boo xam ne nit dafa ñëw di wax ca la muy wax. mu naan ko yow dangay ngay diingat maanaam parce que diingat boobu moo amul lu tax diingat boobu amul mooy su dee ci wàllu gëm-gëm la nit ki soo gëmee dara nit ñëw nit kooku am lu mu seetlu wala mu am ab laaj loo xam ne dafa gis ne liikat kat yenuwul maanaa ci moom su ñëwee laaj la ko bul wax ne yow da ngay diingat da koy wut tontu loolu question la bo xamne nit ki mom moy xelat ci bopom ba am lo xamne gis na ne war na koo mën laaj ndax gis na ne xeyna lolu yanuul mana wala lolu leerul cim xelam wala lolu leunt na cim xelam wala lolu teggul cim xelam mu ñëw diko laaj kon koku soxla wut ñu naan ko yow da ngay dingat koku lu mu soxla mom moy ay tontu nit ki tamit su fekke ne day baye xel ben mbir di ci xelat dem ba gis ne dafa beuri ay incohérence lolu jur ci mom ay questionnement lolu jur ci mom li ñu wax questionnement suñ questionnement boobu nag su ñëwee ñëw toog di di wax ak nga xam ne ñoo gëm loolu di leen ko wax ñooñu waruñ taxaw naan ko yow da ngay diingat ñoom dañoo war a wuta tontu kooku la muy wax suñ ko mënta tontu nag léegi nag lam war a jur mooy la may wax nañ ci yokk aaba suñ ko mënta tontu rek ay jàngat la war a jur na ah na ñun jot na ñu jàngataat la nga xam ne moom lañ gëm ndax su fekkee na ay nit ñu ngi ñëw di ñu di laaj ay laaj ca la ñu gëm te mënuñ koo tontu te amuñ benn argument lu dul na diw day diingat wala ki ñii dañuy diingat kon loolu jafe-jafe am na ca mbiru gëm-gëm walla mbiru xam-xam lu mu mën a doon loolu diingat amu ci question moo am ak questionnement ki ñuy laaj su mënee tontu. amee ay preuve yu mën a tontoo mu tontu su mënta tontu nag bu wax ne diw day diingat ndax diw day diingat mooy maanaam day wut benn toor boo xam ne da koy joxoñee maanaam comme ni échappatoire la diw day diingat échappatoire la échappatoire la ci nit ngir mën a joxoñ kay wax ak moom ka nga xam ne moo koy laaj mooy moom day fàtte boppam di joxoñ ka mu jàkkaar loolu te fekk ne questionnement su amee nit ki su mënta tontu boppam la war a joxoñ maanaam gis ne a ah, lii kat kon war naa cee defub jàngat mooy li wax na ci dolli aaba na kon kat du ma wax warul wax ne diw day diingat waaye day wax ne man kat war naa defub jàngat nga xam ne kon mbir yi waru koo sippi ka koy laaj waaye boppam la war a joxoñ ta su joxoñee boppam rek ab jàngat lay jur ca moom su boobaa dootul wax diw day diingat waaye danaan man war naa defub jàngat yokku aaba noonu lay deme te su boobaa nit ki su yokkee aabi defub jàngat benn mën naa def jàngat mën a am tontu bi wala mu defub jàngat xam ne lii amul tontu mu ne ah naka laa mën a toppee loo xam ne amul ab tontu. naka laa mën a toppee loo xam ne amul benn delluwaay su boobaa loolu moom dana ko yóbbu ci moom it questionnement ba nga xam ne kay ñëwoon questionnement ba mu indiwaale woon loolu it moom it dana teewaat ca moom ba moom dana ca mën a xalaat ba su boobaa dana ca mën a am tontu benn mu am tontu ca la mu gëm mu nekk loo xam ne day ñëw di dëggal la mu gëm wala mu ñàkk tontu ca loola mu doon loo xam ne day wane ne la mu gëm taxawul. mbir moomu rek moo mën a am mais du ay mbiru diingat wala nangam wala nangam man li may laaj te mais comme li ma doon laaj ci jamono bi ci ginnaaw ci wàllu rajmu maanaam ci wàllu niñ koy waxeeti maanaam ku murtat liñ doon wax naan ku génn ci eh, ni ak li ñuy wax naan ku toog ñetti fan julliwoo ak li ñuy wax ci wàllu sàcc mën a ñaata loxo la yooyu ay question la yoo xam ne su ma ko laajee te ñi ma koy laaj ñu gëm ko ñoom seen bopp ñoo war a taxaw xoolaat lii kat su fekkee ne nit daf ñu koo laaj laaj ñu fan la borom bi jàngale lii te xam nañ ne àtte yooyu yàlla képp moo ko mën a jàngale te ñoom xam nañ ne mënuñoo indi fenn foo xam ne fa suñ borom jàngale loolu kon jafe-jafe la kon su ma ñëwee laaj leen ne leen ndax yàlla dafa digle ñuy tagg yonent bi ndax yàlla dafa digal ñi gëm ñuy tagg yonent bi ndax ki nga xam ne day tagg yonent bi moo xam ci wax la wala moo xam ci bind la ndax tagg googu yàlla daf ko ciy fay ki nga xam ne day jàng ay tagg yoo xam ne dañ koo taggoon yonent bi ndax moo xam ci wax la wala moo xam ci bind ndax kooku dañ ko ciy fay ba ca mujj mooy tagg googu ban njëriñ la am léegi nag nit ki li may wax jamono bu ne lii ak laa biire la kenn ku ci ne ci nit ñi warul ñëw rek taxaw di wax na ah man lii laa gëmoon kon dama ko war a défendre ndax li ngeen gëmoon noonu waaye li ngeen gëm noonu man mii di wax loolu laa gëmoon tagg yooyu ñuy wax dama ko daan jàng daan ko digle dama ko daan jàng daan ko digle man ba may nekk ci tariixa yooyu dama amoon maanaam loo xam ne ku mës a ñëw nañ ko daan waxee ku mës a jébbalu ci man dama lay jox benn ca yooyu ci tagg yooyu te loo xam ne man dama ko daan def nga xam ne dama ci yoroon lu bari ku jébbalu ci man ma jox la ca benn te loolu man mii dama ko daan def kon ngeen gis ni solo si du foofu solo si mooy nit ki su ñëwee di laaj maanaam bu nit ñëw rek taxaw nekk sur la défensive ne kii dañ ko war a tontu xaw ma ndax suñ ko tontoon nangam war nànga nangam déedéet solo si du foofu.

bëriwaana ñoo xam ne dañuy tagg lu ñuy wax yonent bi dañuy tagg yonent bi di wax ci moom nangam di wax ci moom nangam di wax ci moom nangam su dee ñun suñu réew mi ñu ñuy tuddee suñu mag ñi ñi ko nit ñi di tuddee maanaam bëriwaana ñoo xam ne xeetu tagg yooyu dañ ko daan def di wax dañuy tagg yonent bi tagg yooyu am na ci yoo xam ne ba tey mu ngi fi. yaatu na fi mu nekk loo xam ne nit ñi yenn saa yi sax dañ koy jàppee loo xam ne maanaam euh, comme ni ñu wax ma tudd xeetu ndam la wala yoo xam ne dañ koy ndamoo ci kaw ñeneen wala nangam wala nangam wala nga xam ne ay mbir la yu fi nekk moo tax ñu ciy posé wu ay question ñenn ñi dem sax ba loolu gënal leen alxuraan ca boppam di waxu yàlla di wax na lañu mën a jëlee ci loolu nuñ koo jëlee ci alquran mu jaral leen ñu ciy créer ay théorie comme niñ ko doon waxee rek ci loolu ñuy wax salaatu ala nabi ak ñenn ñi ñu ciy waxee lu mel ni salaatul fatihi di wax naan maanaam léegi maanaam xawma xawma lan ëppee na alquran nangami nangam xawma xeeti yooyu nga xam ne nit ñi yenn saa dañ koy wax te ñenn ñi ñëw sax di leeral naan déet suñ ko waxee ci ku mel ni moo tax ñuy wax wala nangam ñun foofu la ñuy waxee parce que su dee diine di diine islam diine jooju yàlla moo ko moom ndax wax naa ko ci audio yooyu ma ko ñun suñuy laaj suñuy laaj fan la jëm mooy nit ki su fekkee ne ku gëm la ndax war naa jëm ci lu ko borom bi digalut ndax su fekkee ne nit ñi dañ daan tagg yonent bi di wëy te yonent bi moom ci boppam ku dem ci sóotu yaasin yàlla wax ko ne ko wa ma allamnaahu shi'ra wa ma bagi lahu yàlla di wax na yonent bi moom xamaluñ ko wëy te sax wëy dafa yellut ca moom yellut laa wax yellut ca moom loolu la yàlla wax léegi nga gis ay nit ñoo xam ne yenn saa yi dañuy wax ne sax ñoo doonu yonent bi ñoo nàngam noonu la ko nit ñi di waxee yenn saa yi ñoom ci boppam la nga xam ne yàlla dafa waxoon na yellu ci yonent bi ñoom ñu di ko def léegi nag nit ñi ñoom seen bopp ñëw di yëkkati loolu di ca wax ba di ci wax sax ay daraja wala ay may yoo xam ne ci loolu la juddoo ñun suñu laaj foofu la jëm dañuy laaj ngir bëgg nit ñi am ay questionnement yoo xam ne day yeewu ci seeni xel ñoom it ñuy xalaat ci mbir yi ndax diine dafa compliqué wul diine méttiwul diine lu jàppandi la waaye li nit ñi dugal nag wala li nit ñi sos créer ko di ko tuddee diine moo bari loolu ci boppam moo ëpp diine ji ci boppam li nit ñi sos di ko tuddee diine moo ëpp diine ji comme téere yi nga xam ne dañuy ñëw ne dañuy jàngale diine ni mu ëppee téere yàlla ni mu ëppee téereeb yàlla parce que sooy gëstu day bëri loo xam ne da koy mën a xam xam nga nit su ñëwee nii vingt et unième siècle nii ci jamono bi maanaam parce que moom lii la gëm bi juddoo lii la fekk su nit ñëwee di laaj leen mu ñëw taxaw jàpp ne dafa war a défendre loolu te leer na ko ne suñ ko laajee na ko ndax yàlla dafa digal ñi gëm ñuy tagg yonent bi leer na ko ne mënul muusa kawaane ba indi benn aaya bu saxal loola waaye teewul dee ñëw di wut defendre loolu da ngay gis ne loolu jafe-jafe la parce que ñoom dañuy dem ba jàpp ne défendre loo xam ne bi ñu juddoo loolu lañ fi fekk muy ab aada ci wàllu gëm-gëm dañuy jàpp ne défendre ko loolu da leen a war alors que yàlla du leen laaj loolu loolu ngeen di défendre yàlla du leen ko laaj ëllëg loolu ngeen di défendre yàlla du leen ko laaj ëllëg loolu ngeen di défendre yàlla du leen ko laaj ëllëg ndax man mii di wax nii ak yéen yàlla dafa dogal en mille 2017 benn ibaadu moo ma laajoon ndax jàng wëy yi ñuy wëy noonu la ma ko laajee woon benn ibaadu en 2017 maa ngi jàpp tur bi ba léegi moo ngi tudd woon ngi tudd woon aali saaxo boo ko tag seen aali boobu nekk seen groupe boobu kooku France la nekk saraxule la group boobu ñu créé woon mu tuddoon Nihma TV fa la bokkoon ab ibaadu la bu doon def yenn saa daan na dugal benn kii bu am micro ñu bind ci Ali TV yaakaar naa moom moo mosoon a laaj loolu en 2017 ndax mu ne ma ndax xasaayit yooyu ku koy jàng da nga ciy jëlee ay tuyaaba noonu la ma ko laajee woon bi ma ko laajee tontu naa ko nii parce que boobu nekkagul loo xam ne maam boobu maa ngi ci ma ma suñ borom mu ngi may yee ci alxuraan mais am na ci yoo xam ne maanaam desoon na ci man moom ci boppam mu laaj ma loolu mu ngi nekkoon début 2017 ma tontu ko nii mais ginnaaw gi man sama bopp dama ci doon xalaat man sama bopp bi ma demee di ci xalaat man sama bopp bi ma ciy xalaat. ci laa dem ba yeewu ci nag ne ah kii kat laajam bii laaj bu am solo la te ci noonu laa demee ba man xeet yooyu ma yeewu ca xam ne lii bokkul ci mbir yi ma pare ca completement ba nga xam ne nit su ma laajee dama naan la moom daal lépp lu yàlla jàngale wut nit soo ko dee jàng waaye boog lu dul téereb yàlla ci diine soo ko dee jàng bu ci yaakaar payub yàlla maanaam si diine comme li ñuy wax loo xam ne da koy jàng comme ni ngay mën a jàngee alquran di ci mën a jëriñu di ci mën a jëlee njëriñ sa digganteeg sa borom noona lu dul alquran nit su ko dee jàng du ca jëlee njëriñ te ginnaaw gi yàlla dogal na ay nit laaj nañ ma ko am na ci ñoo xam ne samay mbokk lañ laaj nañ ma ko fekk sax dañ leen a wax na leen maanaam diw nee day tere sax ku jàng comme li ñuy wax ay xasaayit samay mbokk am ñu ma ci woo laaj ma biñ ma woowee laaj ma maa leen man li may wax mooy képp koo xam ne yaa ngi jàng lu dul li nga xam ne moom la yàlla wàccee ci ñun di alxuraan di ci yaakaar am payub yàlla la nga cay yaakaar doo ko ca am maa leen man loolu laa wax te loolu li ko jur ci man lan la laaj boo xam ne nit moo ma ko laajoon moo tax may ñëwaat tey man it di leen ko laaj ngir bëgg yéen ngeen xalaat ndax kam man li may wax jamono bu ne ndax mënoon naa faa nekk naan kooku day diingat waaye xalaatu ma ne kooku day diingat nit ki laaj na su laajee laaj boobu moom mooy poussé ci xalaat te man yàlla dogal na loolu dama ciy sant yàlla bëri na ci mbir yoo xam ne laaj moo tax mu leer ci man ndax damay wax ne nit yàlla lum nam mu leer ci yow ku dem ci video yi ma doon def ay 2017 ci mujj gi di nga ci dégg may wax loolu yàlla lu mu namm mu leer ci yow dala ci bàyyiloo xel yàlla lu mu namm mu leer ci yow dala ci bàyyiloo xel te des fois bàyyi xel gogou ay nit ñola la ci bàyyiloo xel ci laaj yuñ lay laaj ay nit ñola la ci bàyyiloo xel ci laaj yuñ lay laaj motax may ñëw di laaj li ngir bëgg nit ñi ñomit ñu bàyyi xel xelaat te ku bàyyi xel xelaat di nga xamne yàlla amul fenn fu mu diglé ñu tag yonent bi amul fenn fu mu diglé ñu tag yonent bi ndax kooku muy wax naa ne yàlla moo njëkk a tagg yonent wax na wa innaka la ala xuluqin azim kii xuluqin azim ma ne da ngeen dem ci saar ba xool yàlla lan la wax bi mu waxee loolu it lan la ca wax mu mel ni am na koo xam ne day waaye ne yonent bi moom nii la mel kee moom nee la mel mu mel da koy comparé ak keneen ngir nit ku ci ne mën a xam dellu ci aay muy sootu xalam ku ca dellu yow yaay xamal sa bopp sootu xalam mooy surat 68 muy suurat surat 68 am na ku ci dellu yow yaay xamal sa bopp kon dëgg-dëgg mbir mi foofu la nekk te sooy gëstu tamit di nga dem ba gis ne fii ci réew mi dafa amoon benn jamono boo xam ne dafa mel ni loolu ñuy wax woy dafa xewoon maanaam ñëpp di ko def mu mel ni comme par exemple genre concours wala concurrence boo xam ne ci benn jamono nit ñi kenn ku ci ne ñi nga xam ne ñoom ñoo daan def loolu dafa am benn jamono boo xam ne ñenn ñu ne dañ daan def loolu te soo xoolee ba léegi sax daanaka ñi nga xam ne ñooy tuddoo ñooñu ñii dañuy wax naan diw kenn du moom ndax ku gis nangam nam ko woyee ñee naan diw ma kenn du moom ndax soo xoolee baxaru nangam kenn melo ca ne moom nangam nangam da ngay gis ne dañ koy def genre concurrence ñii di wax lii ñii di wax laa te ñoom ñiy toog di def concurrence ci loolu waroon nañoo xalaat est-ce que ñun lii nii. yàlla daf ñu digal ñu di ko jàng ak ndax suñ ko jàngee dañ cey jëlee benn njëriñ parce que yonent bi ci boppam yàlla santuñu ñu tagg ko yàlla la ma yàlla la mu santaane woon ci yonent bi doon gu mu doon ndaw mooy ñu topp ko te suñ koy topp ca lañ koy topp la nga xam ne moom lañu wàccee ca moom wattabahu nuura allazi unzila maahu topp leen leer gi nga xam ne moo wàcc ànd ak moom leer googu lan la leer gi mooy téere bi yonent bi léegi newatu fi waaye leer ga moom di téere boobu mu ngi fi kon nit ñi war nañ saa mën a dem suñu bëggee roy yonent bi wala ñu bëgg yonent bi loolu doon naa wax sax bu yàgg ci ginnaaw gi may ku bëgg yonent bi da ngay topp la mu daan topp te yàlla da leen wax na sax yàlla da leen waxul sax bëgg leen yonent bi yàlla waxu leen loolu te soo xoolee jafe-jafe yi fi nekk yu bari maanaam indi giñ indi yeneen support mu nekk fi ci wetu téereb yàlla jafe-jafe yu bari loolu moo ko jur day dem ba sippoor yooyu mi bind yooyu ñoo na nit ñi ci téereb yàlla ci boppam support yooyu ñooy na nit ñi ci téereb yàlla te nit ñi ñoom it ñoo war a toog xelaat est-ce que dëgg-dëgg mbir yi nañu ko jàppee ak nañu ko fonkee ndax dañoo judd fekk ko fi ndax dañ ko donn est-ce que dëgg-dëgg nañ ko jàppee noonu la demee est-ce que njëriñ liñ jàpp ne am na ko est-ce que dëgg-dëgg am na ko te njëriñ lii lan mooy déterminer ndax am na ko wala amu ko mooy yàlla ci boppam ci téeréem suñ demee ci téeréeb yàlla su ko yàlla digle ñu xam ne am na njëriñ su ko yàlla diglewul ñu xam ne amul njëriñ te yàlla diglewu ko kon dàq na njëriñ la yàlla ñàkk digle gi mu ko ñàkk digle rek day dàq njëriñ la nit nag mën na wax ne ah kii lim kii da koo xamut ndax maanaam ñun ñu koy ñun ñi nga xam ne ñu ngi ci yëg yëg yañ cey am ak lañ cey jëlee ak la diw wax parce que loolu doon naa ko wax ay jamono man bi ma yeewoo ci loolu ci laa dema benn instant loolu sax bokk na ci li ma mujjee yeewu mooy diw nee na nangam te loolu it ba tey ab nit benn ibaadu ba tey moo ma mës a wax loolu dafa am lu ma mës a laaj ma tontu ko ne ko loolu loolu man maa ko wax ndax diw moo wax nangam mu ne waaw yow sëñ Cheikh yow est-ce que diw moo ne nàngam rek li ma leen wax nii lii lu ma dund la mooy man sama cheminement ci boppam bëri na ci loo xam ne ay question yu ma ay nit posé yenn yi ay ibaadu ñoo ma ko posé yeneen yeneen nit yu bokk ci yeneen tariixa ñoo ma ko posé maanaam question yooyu tax na ba ma xipp samay bët ci yu bari ibaadu bi ne ma. waa léegi yow sëñ Cheikh yow ku la dégg gis ni ngay raisonné ak ni ngay xalaatee logique boobu maanaam est-ce que yow war ngaa sukkandiku ci ne diw moo wax nangam rek est-ce que yow war ngaa sukkandiku ci ne diw moo wax nangam rek ma ne ko ah, waaw waaw loolu de moom dëgg la waaye nag diw moom moo wax nangam wax gim ko wax moo tax ma wax loolu mu ndax gisoo ne loolu. doyul ngir nit war a mën a taxaw ne nangam gi nangam yàlla xam na ko ci noonu man it ma dem toog di xalaat loolu it benn waay la benn ibaadu la bu nekk bu nekk États-Unis moom sax ku baax la wax dëgg yàlla kooku ndax mësuma seetlu ci moom euh, ci jamono yi ma doon échanger ak moom mosuma seetlu ci moom lenn loo xam ne dañ koy mën a tuddee ak njubadi wala nangam wax dëgg yàlla nit ku correct la. Euh, comme li ma doon wax keroog ne du ñëpp may kooku moom ku ma xam la ku correct la maa ngi fàtte sax tur bi mais États-Unis la nekk États-Unis la nekk am na benn groupe buñ ma buñ ma dugaloon ñoom bu tudd xaw ma xam sa diine xaw ma genre boobu la daal waaw genre genre groupe bu mel noonu yaakaar naa waa ji sant bi santu séeréer la su santul Juuf wala xeet boo ko teg sama séeréer tappalekat bii nag <laughs> bokk nag sama séeréer toppalekat bi waaye ko xaw ma juuf la sant xaw ma tuba xaw juuf xaw ma fay daal moom moo ma laajoon loolu bi ma laajee loolu ginnaaw gi ma ne dama cee xalaat bi ma cee xel bi ma ci xalaatee ma ne effectivement sax loolu dafa loolu dafa yomb ginnaaw gi ci laa dem mbay wax nit ñi ne man bokk na ci li ma gën a jaaxal gars yi nga xam ne dañuy gëm yenn yi te man noonu laa ko gëmee woon maanaam dañuy wax ne diw nee na nangam kon dëgg la te ma ne loolu pourtant soo soo ci xalaatee nii rek da ngay xam ne amul benn saas diw moo wax nangam waaw diw sax soo demee ci téere sàngam nee na nangam waa diw nga dem ci téere sàngam mu wax nangam ndax loolu dafa tax loolu wér soo demee ci téere sàngam mu ne nangam waa ji isa tudd xaw ma Amadou Faye xaw ma daal nu mu tuddati waaye états une la nekk waaw moom États-Unis la nekk. xamatuma daal nu mu tuddee exactement mais mais tur bi mais mais sant bi santu séeréer la daal wax dëgg yàlla nit ku correct la nag nit ku correct la kooku waaw léegi nag ci laa jëlee loolu ci laa xalaat ci loolu ba gis na effectivement loolu dëgg la moo tax man sama bopp ñi ma xam daan naa wax ginnaaw gi ne leen ma li ma gën a jaaxal nit ñi nga xam ne dañ naan diw soo demee ci téere sàngam nee na nàngam mu mel ni léegi diw su ne su nee nàngam rek loolu moom c'est un dëgg la boo xam ne kenn mënu ci dara alors que deug yalla mo koy saxal li deug ak lu dul deug yalla mo koy saxal diw wax nangam ci terem taxul lolu wer li tax mbir wer moy yalla wax ko lu yalla waxul wërut diw neena man nangam ak nangam ak nangam lolu taxul nangam gogu di nangam gamu wax su fekkone yalla mo ne nangam gi nangam ko ñu mëna xamne nangam gogu nangam la mais problème bi da ngay gis ni même soo xoolee tele yi fii Sénégal ñi nga xam ne ñoo ciy waxtaan maam seetaan naa ci sax ñoo xam ne ñoom seen bos sax dafa gën a dangereux xam nga par exemple dañuy wax ay wëy wii euh, maanaam comme lii ab wëy la ku ko jàng da nga ci jëlee nangam danga ci jëlee nangam da ci jëlee nangam ñoom ci wëy yi la ñuy wax na soo ko jàngee di nga ci jëlee nangam mais dafa am lu gën a garaaw loo xam ne am na ci kuréel yi nekk Sénégal ñenn ñu koy def. ci wàllu nii li ñu wax affaire fiq daal affaire fiq am na ñu ko ciy def de bëri na sax léegi nekkul sax benn kuréel bu njëkk benn kuréel ñoo ko daan gën a def kuréel yi fi nekk na beneen kuréel tamit boo xam ne ñoom ñoom bu njëkk ba yu bari daawoo ko dégg mais seen génération yu mujj yi da nga ciy dégg yu mel noonu daal maanaam loo xam ne yàlla daf koo wax mu leer yàlla daf koo wax mu leer comme ci wàllu diine ñoom nga wax leen ko ñu ne ñoom. ci école diw lañu ñu génnee ci école diw lañu ñu génnee kon ñun amul lu ñuy jëlee ci keneen muy lu grave lii la yàlla wax fii la ko wax ñu ne ñun ci école diw te seen kilifa yi ñoo koy wax ci ay vidéo laa koy gis ñun xadara sàngam lañu génne wala université nàngam euh, ci diw la génne wala université diw lañu génne am na ci benn jamono en deux mille dix huit bi ñuy wax ci wàllu biral ak yellu vidéo vingt six dafa am benn nit boo xam ne daanaka depuis boobu ba léegi moom it dinañuy échanger mosuñoo kii gise nañ benn yoon sax mu ngi dëkk fi Dakar daf ma wax ne ma loolu dafa dem di ko laaj seen maam seen naib ci seen jàkka mu koy laaj jàkka bi nekk seen koñ mu koy laaj mu laaj seen naib bi. ci affaire indil ko aay bi wala tajhar bi salaat ci maanaam ci aay cent dix bi loolu nekk ci biir wala tajhar bi salaatika wala bi biha ba bayna zalika sabila nee na bi biñ ko ko laajee kooku ne ko waa lii de moom dëgg la lii la yàlla wax mu ne ko waaye man mës naa koo laaj oustaz diw mooy ci ñi nga xam ne dañuy wax ci télé yi am na ci ko xam ne moom it ci ci ci fee la bokk ci maam ci ñooñ di wax ne université diw lañ génne wala école diw lañ génnee koku sax jamono bi da ñu wax daa am ay quelques jafé jafé affaire yu ci wéré di dal néna koku la laaj mu bimla aje mu koku koku kooku ne ko waaw dëgg la li Wah li la alxuraan wax waye ñun nak dañoo ñëw fekk suñu mag ñi daan def nangam nga ba mënuñ ko bayyi dem di def leneen mu nekk lu dangereux manam yow xam nga ne li la yalla wax waye comme da nga ñëw fekk seen mag ñi doon def leneen seen mag ñi lañ doon def lool ngay def waye do wax li yalla def li tamit bokku batay yo xamne day dugg sax ci cadre mbind yoyu manam ni nga xamee non la détourner nit ñi ci li nga xamne mom la yàlla di jàngale te mo ne kat soo demee ci alcorane yàlla wax nako ñaar yoon so démé sotu baqara ak sotu luqman wa idha khila lahum muttabihu ma anzala allah ñu ne xaalu bal nattabihu ma alfayna alayhi abana fee mu ne xaalu bal nattabihu ma wajadna alayhi abana so ñu waxé ne leen waa tey ngeen a li nga xamne mom la yàlla di wàcce ñu ne ah ñun kër li ñuy topp mooy luñ miinee suñuy bàyyi wala ñu ne la ñun kat li ñuy topp mooy li nga xam ne ci lañ fekk suñuy baay yaa teg ci ci bi nekk ci baqara awlaw kaana abaahum laa yaqiluuna shay'an wala yaxtaduun waa donte sax seen bàyyi xel wuñ woon te gindeeku wuñ woon te fekk na soo ñëwee fii loolu nga fiy fekk da ngay fekk ne comme li ñuy tuddee fii Sénégal suñ mag ñi dañoo judd woon fekk fii lu ñuy wax njàng njàngaleem ahlu sunna wal jamaa loolu lañ leen jàngaloon loolu lañ jàngoon loolu lañ xamoon loolu lañ jàngale kon ñoom conscient wuñ woon ci ne lañ leen indil bokkut ak islaam ca boppam conscient wuñ woon ne lañ leen indil bokkut islaam ca boppam loolu conscient wuñ ci woon te suñ ci conscient wul ñoo gindee ko kon ci mbir mi dëgg-dëgg ci li nga xam ne moom la yàlla wàcceel boppam kon léegi nit ki yow soo demee ba yegg si ba yegg ci benn jamono boo xam ne dañ lay indil ne kat yàlla lii la wax jox la référence yi nga mën a dem vérifier ko sa bopp wala suñ tuddee aay ci boppam yow nga mën koo dégg xam ko nga déglu aay nga dégg aay xam ko wala nga dem vérifier sa bopp aay gis ne ah effectivement kat lii diw mi wax bokkut ak lañ ma jàngaloon bokkut ak suñ mag ñi lañ fi bàyyi waaye te diw lii mu wax maa ko gisal sama bopp te lii yàllaa ko wax. ba pare nga ne ax ah, waaye sax garaawul ah, man ñun daal suñ mag ñi lii lañ leen fekkee lii lañ miinee woon ci ñoom waaye lii lañ leen fekkee woon dangay gis ne loolu jafe-jafe mag a mag la te pourtant loolu mu ngi fi. mooy li may wax léegi ci audio boobu ma doon def di wax ak waa jooju di wax ci salaatu ala nabi rek maanaam di wax ne ñun wax yi ñuy wax ku am xel da ciy sant yàlla parce que dafay ñëw di leen conscientiser di leen bàyyiloo xel. nekkat li ngeen nekk bokkut ak li yàlla jàngale te man lii ma leen wax nii lépp ci ay question la juddoo ci man ay nit ñoo laaj ay laaj laaj yooyu suñ ma ko laajee moo tax may tàmbali di xalaat ci loolu dem ba xam li xew moo tax su moo tax par exemple saa yu ma seetaanee ñi ci tele yi wala gars yox wax dañuy def conférence naan diw nee na sun nangam nangam su demee ba bis pénc wala diw nee na nangam wala diw nee na nangam di ko wax ak benn ni ñu koy waxee benn assurance benn nangam bi reetaan sax daf may jàpp dama naan diw nee na nangam diw nee na nangam ban valeur la am ci diine yàlla ban valeur amul benn valeur ci diine yàlla yàlla li muy wax wax na ko ba pare yàlla li muy wax wax na ko ba pare ci téere bi diine lu ci wér ak lu ci wérul lu leer la li aju ci diine yàlla wax na ko ba pare ba mu wax ba mu waxee ne al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islaama diina ba saa ko wax benn waaye ne ma ah kon léegi aaya boobu ba mu wàccee beneen aaya beneen aaya wàccaatut ma ne ko mooy aaya bi ngeen wax lan wattaqu yawman turja'una mu ne ma waaw ma ne ko yéen al yawma xamoo leen lu muy firi xanaa al yawma al yawma akmaltu kay suko yalla waxe waxee moy matna gina lolou ginnaaw ay ñewul yoy sen gaay ñoko wax ma ni bi yalla waxe ne maam tay ji aujourd'hui wala bok ce jour ci mais ne bi ko yàlla pare gina gi dafa ñewat di waxat lenen ma lolou yalla jangale wul lolou yalla bi ne al yawma akmaltu ku xam li ku xam la wax je de firi xam nga ne bis bobu la yam yàlla ba mu waxee ne al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islaama diinan ba fi yonent bi di nekk boobu la diina jamat kon amul leneen kon ay nit suñu bëggee ñëw di wax yenn wax yi mel ni la ñuy wax dafa am fenn fu mu tegu loolu c'est tout à fait problématique kon nañu bàyyiwaat xel yàlla taggloo wuñu yonent bi taggloowuñu sax moom jëmmam ja ca boppam parce que ñu njëriñ lu ñuy jëriñ mooy gëm yàlla di jëf lu baax gëm yàlla jëf lu baax gëm yàlla jëf lu baax yàlla indi wuñu fi pour ñu fiy toog di tagg yonent bi yàlla indi fi pour ñu fiy toog di tagg yàlla moom ca boppam dañu fee indi ngir ñu liggéeyal ko ci kaw suuf liggéey service la nekkul toog fii di tagg ay yonent walla nàngam loolu loolu yàlla taxul mu bind ñu wala ñëw fii di jàng ay tagg yoo xam dañ ko taggoon yonent bi loolu taxul yàlla indi ñu fi des fois nga gis ni naan ah maam diw ci lii la nekkoon ba tax mu tollu fii wala mu yëg loolu moom moo jàpp dafa tollu toll nee naa leen affaire tasawu fii surtout rawatina sax des fois damay wax ne ñi ci nekk ci illusion la ñuy dund. xam nga tëdd nelaw gént dara jàpp ne loolu mooy dëgg wala nga wérd nii ba sa yaram tàng jër wax na ma am bëri li may wax nag dama koo xam de du lu may foraatu dama cee sonn lii li. li xamantuma ko sax dama koo xam maanaam wérd ba sa yaram wi tàng jër nga xëy ni ñi naan moom ak a leer ni fekk tàngoor rek lay bëgg a rey ñàkk nelaw yor say jukki di windeel wala ñàkk nelaw yor sa kurus di wérd lii moom dama koo xam moom lii moom ay mbir yu ma xam la waxuma sax man waaye taalibe yi ma amoon rek ñoom dañ koo xamoon ñoom dama leen caa yaroon yarin wu tar sax wu teeng kon loolu dëgg-dëgg noonu la deme kon mbir yi dëgg-dëgg noonu la demee kon nit ki kenn ku ci ne ci ñun dafa war mu bàyyiwaat xel boppam ndax li ma leen wax ci laaj yooyu ak jeexit yi mu am ci man ni mu ubbeekoo ci man ba tax ma gën a yeewu ci leen li gën a bàyyi xel leen li looloo tax may laaj laaj yi ngir bëgg yéen it ngeen bàyyi xel loolu mën a jëriñu ci seen digganteek seen borom bañ di sànq seeni jëf ci loo xam ne amalu leen njëriñ kon dëgg-dëgg mbir mi foofu la nekk waaw kon wax dëgg yàlla macha allah maanaam laaj yooyu ñu doon laaj ci loolu lii moo ko waral. du ñàkk nag am nañ yeneen i laaj ci kanam incha allah danañ ca ñëw su ko defee bëgg nit ñi bàyyi ko xel xelaat ci te suñ ko defee rek dana bëri loo xam ne dana ko mën a jur ci ñoom surtout rawatina ñi nga xam dañuy wax ne soo demee ci téere sàngam diw nee na lii mu mel ni diw su waxee loolu rek dëgg la diine li ciy dëgg ak li ci dëgg yàlla moo ko saxal te yàlla nee na li mu wàccee li mu wax yu mu jëm ci yonent bi loolu mooy dëgg te loolu mu ngi fi téere bi yàlla téere boobu nag la ca yàlla wax loolu mooy dëgg lu fa nekkut du dëgg mbir mi noonu rek la leere noonu rek la yombee it nag kon wax dëgg yàlla mbir yi foofu la nekk kon di laa laabire nit ñi bëgg ñoom it ñu jëm ci xalaat ndax suñu xalaatee li war a leer te ñoom dana leer surtout rawatina ñi nga xam ne dañuy wax ne ñoom dañoo jàng parce que ñoom dañuy jàng ba pare di attaché wu ci mbiru aada yooyu muy gëm-gëmu aada yooyu. di jàpp ne ñoom dañ ko war a mën a layal waa dañ ko war a nàngam donte xam nañ ne sax amuñ preuve bi soo leen laajoon fu yàlla wax nàngam ñoom xam nañ ne loolu amul mais dañuy jàpp ne dañ ko war a défendre surtout ñooñu sax surtout ñooñu wax yii nii ñoom ñoo gën a tax ma ñoom ñoo war ñoom ñoo gën a tax ma koy laaj ñoom ñoo gën a tax ma koy laaj parce que dañuy ñëw di wut a défendre détails yooyu te duñ ci xalaat te suñ ci xalaatoon rek taxaw suñ ci xalaatoon rek taxaw. te it jarul ñuy sóor nit ñi nañu sóor yàlla man mii di wax lii ma leen di wax nii yépp fii laa ci jaar ci ay laaj yu ma ay nit laaj te yàlla dogal na loolu ñama ko ña nga xam ne ñoo ma ko laajoon du bayeen fàtte parce que may gis ne ñii dimbale nañ ma ci nangam mooy li may ne wax yi ñuy wax da ngeen ci war a sant ndax man ñooñu laaj yi ñu ma laaj dama cee sant yàlla kii ma leen wax nii moom turam dama ko fàtte waaye ka ñuy wax Ali Sakho parce que dañoo nekkoon ci groupe moom lu yàgg moo tax fàttewu ma ko kii nekkoon États-Unis moom échangé nañ moom ay yoon moom am na yeneen laaj yoo xam ne ay nit ma ko laajo ñooñu ba tey seen i tur maa ngi ko jàpp ndax laaj yooyu dafa nekkoon ay laaj yu déterminant ci sama dund ci sama wàllu gëstu ak sama wàllu bàyyi xel gi may bàyyi xel ci diine yàlla. dafa nekk ay laaj yoo xam ne laaj yu déterminant la yoo xam ne poussé na ma ma xelaat dem ba xam lii dëgg. waaw ah, kon dëgg-dëgg mbir yooyu noonu la demee ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di baalu ñëpp aax te di leen baal a tey ñaan yàlla mu boole ñu jégal jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum